Bienvenue, vous êtes sur la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. merci donc euh, pour ce deuxième numéro réservé à Hood Moulé ñu ngi dalal une dame boo xam ne elle vit présentement en France à la ville de Besançon donc moom mooy suñu deuxième invité pour cette émission bi nga xam moom la yàq nag ñu accueillir madame Virginie Traoré s'il vous plaît madame Virginie Traoré je le rappelle elle vit en France à Besançon Elle est là séjour au Sénégal. Alors c'est notre invité pour ce deuxième numéro de votre émission Ëpp alors ñu tourné ko fii nag euh, au restaurant Can National sur la VDN à Sacré-Cœur 3 di remercier au passage euh, madame Awaka pour avoir mis gracieusement son espace à notre disposition

Madame Virginie, comment vous allez Asseyez-vous. Merci beaucoup. Ça va, na nga def. Ça bien. Oui, ça va. affaire yi. ça gis nga suñ dëkk bi ni mu tàngee. ngi tàng. tàng na. tàng na jër. ah tàng na jër. <laughs> mais France actuellement war na sedd wala wala mu ngi commencé tàng. ah mu ngi tàng ñu ngi si vraiment ñu ngi si le 21 bi. waaw. dañuy am commencé été. ah été. ah d'accord d'accord d'accord. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tantôt au sommaire de cette émission, nous avons comme invité pour ce deuxième numéro euh, Madame Virginie Traoré, alors nekk en séjour au Sénégal ñu fas yéene waxtaan ak moom nag un peu ci ci jaar-jaaram ak aussi tamit euh, lan moo bu France lan la fay def ak aussi tamit euh, gis nañ ko souvent muy ñëw au Sénégal et particulièrement à Dakar lan moo fi ay tànkam mais d' abord euh, madame Traoré nga nuyoo ak téléspectateurs yi lay seetaan sur la TMS TV. voilà asalaamaaleykum mbokk euh, Sénégal maa ngi leen di nuyu ñeen ñëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu doyen Aziz di nuyu comment ça s'appelle encore. Euh, voilà Jibi ak Fallou. ak Fallou ak chauffeur bi chauffeur bi. Ablaye Ablaye. voilà. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. d'accord di leen ñaanal jàmm. Mhm. di jiital nuyo bi si suma grand frère bi euh, le xalif général di suñu kilifa. di mhm. suñu yaakaaru tey ak ëllëg di suñu lépp. maa ngi koy ziar bu baax wax di ko ñaanal jàmm bu mhm. bëri. Mhm. di ziar suma famille bi yëpp euh, euh, doom yi prince Rahman prince Rahim. Mhm. di ziar euh, ajaratu mama Mariama suñu princesse la reine Moule. tante Oumy ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu ziar. mule mule yëpp hmm. taalibe yëpp eh, national Gambie ak international eh, Mauritanie international ñoom hmm. ñëpp maa ngi leen di hmm. ziar di leen ñaanal jàmm surtout suñu jëwriñ yi Sonko mule eh, Fama Sow mule Tikel Sow mule Galo Sow mule Alaaji Touré mule Mahamed Youssoufa mule <laughs> Eh, ñaame soirée mule wala eh, sertaay bu yam mule mhm. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di mhm. leen ziar di leen ñaanal jàmm di nuyu ñëpp merci suñu mbokk taalibe jinne yi aussi maa ngi leen di nuyu di leen ziar merci beaucoup voilà donc noonu la noonu la nuyu mais d'abord li ma lay laaj mooy euh, Adama Virginie Traoré wala Virginie maanaam tur bi dëgg nan la sama vrai nom c'est Virginie Kenoum Kenum. Kenum, Virginie Kenum. Kenum, c'est-à-dire euh, père béninois, Daoumé, sama papa Daoumé la. Mm -hmm. voilà sama grand-mère bi mooy européen. ah bon voilà c'est c'est de Portugal. kon sa papa Daoumé euh, béninois la métis la ah métis la ah d'accord. moitié béninois moitié portugais. alors Traoré bi nag lu ko ci indi. Traoré parce que je suis mariée avec un Ah, donc c'est madame Traoré. Voilà. C'est pourquoi nous avons Virginie Traoré. parce que en France, mhm. quand mm -hmm. euh, beau marié, léegi sa nom de jeunes fille dañ koy teg de côté. Ma... tous les dossiers. Qui... sa nom de famille quoi dañ koy teg de côté. voilà léegi <laughs> Euh, ah. no mari bi mooy existe ah d' accord ah bi moom la ñuy wax faral di wax quoi. ah d' accord ah. mais Virginie vous êtes née au Sénégal ou bien vous êtes née au Bénin. ah je suis née au Sénégal. ah au Sénégal. parce que dans les années soixante. Mm-hmm. sama papa di doon def eh, moom professeur la. Ah, professeur. il a oui il a fait la pathologie légiste. Ah, d'accord. Bon, il faisait international dans les facs de médecine. Ah, d'accord, il était médecin. Ouais. Oui, parce que il, bon, il était à celui qui s'en occupe. Dans les années 60, Momo Yoron, hôpital Dantec. Ah, hôpital Dantec. Voilà, ah, avec euh, qui, fac de médecine au Fanbi. Ah, d'accord. Momo Yoron, dans les années 60. Descend. Donc, je suis né ici. Ah, d'accord. Mais, après, euh, il a de mon problème, avec problème blondé, Bobu Nyurayondal. Wow, Alpha, qui, Alpha Blondé. ah d' accord Blondin Diop Blondin Diop voilà c' est ça. bi mu euh, bi ñu ko reyee. waaw léegi moom ko expertisé woon bon Senghor tu sais les gens comme. Euh, ça euh, c' ça d' wu ñu woon. voilà mu wax dëgg bi parce que dañ ne woon dañ ko rey ñu ne nii c'est une des choses comme ça bu loon ne Diop c'est vrai histoire bu on se rappelle voilà or que dañ ko pendre si ah, lalam fi mu doon nelaw sama papa bi mu ko expliqué kon moom moo def autopsie bi quoi moo ko def ah très bien waaw mu ne leen dañ ko pendre si lalam bi ah dara pour dara bi mu tëddewoo moom lañ ko pendre léegi nag Senghor bëggul sama papa wax mu ne léegi soxleetul sama papa Sénégal waaw Euh, c'est une longue parce que dañ bëggoon acheter son silence. parce que moom moo waroon na nekk président Sénégal Senghor du président. ah d'accord. nekkul woon moom poète la kii. mais domaine am c'est poète. effectivement c'est un grammairien effectivement. voilà euh, Blondé moo waroon nekk président Blondé Diop effectivement. Voilà, mais euh, c'était le temps de Mamadou Dia. Effectivement, effectivement, on se rappelle. Bon, euh, ñoom aussi c'était des révolutionnaires. Euh, révolutionnaires effectivement ñu nekkoon contre. contre le régime en place. voilà voilà donc ça c'est c'est c'est maanaam maanaam il a dégg ngeen dégg ngeen soxna Virginie ñëw na tuuti ci papaam quand même son maître son père était docteur alors dégg nga elle nous a retracé l'histoire de de de ce feuilleton que les Sénégalais ont vécu vers les années soixante-dix muy affaire Blondin Diop bref alors sa euh, enfance fan nga ko defee fii nga ko defee au Sénégal ou bien en France. Euh, def naa ko fii tuuti parce que c'est une longue histoire. waaw d'accord ñu résumer ko rek waaw. voilà voilà le fait que mon père il ne vient plus au Sénégal euh, ma des ak sama yaay fii. fii au Sénégal ah d'accord bon maintenant euh, pour ma dem si sama papa ñu may xeex parce que bëgguñu ma dem. si sama ñenn la doon xeex. sama propre famille. ah ñoo la doon xeex ko pour bañ nga dem si sa papa. sama côté yaay parce que bu si sama papa c'est fini dootuñu ma jot. dootu la gis. voilà c'était une longue histoire. voilà très bien très bien voilà donc donc bon. voilà en tout cas résumé euh, ci jaar-jaaram bi mu nekkee tout tànk mais finalement bi nga demee ba nekk nag euh, maanaam xàmmee nekk jeune fille fan fan fan nga nekkoon. France. en France ma dem mujjee naa dem France. ah d' def sama vie foofu. d' accord. Euh, voilà d' accord boobu vous avez boobu boobu ci ñaataat nga tolloon ban ban âge nga tolloon. bi nga demee demee en France. Vous aviez peut-être à 16 ans ou des choses comme ça moins de 16 ans. Moins de ça ah, non. Ah, d'accord. Ouais. alors euh, expérience boobu gis nga ko bon wax nga ko yaa yanko ko yaa ngi ko alors maintenant nga nekk en France mais lan nga fa def comme activité. activité jaar naa di hmm? endroit yu bëri voilà mais j'ai pas euh, ma continuer étudier. ah d'accord d'accord parce que pour moi def may mettre en retard si situation bi ma nekk wala voilà il fallait d'abord nga dem nga dem nga dem nga nga arrêter étude pour mën a liggéey quoi. au moins pour ma mën a voilà pour ma vie. parce que le fait que dama am trop de retard fii. Mhm. à cause de bousculade bi perdre là-bas xam nga en cas s'il y a des um effectivement effectivement c'est pas facile à gérer. voilà c'est pas facile effectivement c'est une longue histoire. effectivement mais yàlla def na moom moo baatal suma vie. ba nga mhm. xamante ne daal. Euh, arrivé naa daal voilà def suma vie comme il faut. bien di liggéey ak italien yi. Mhm. voilà euh, jaar naa fu bari daal c'est une longue histoire. tout à fait voilà c'est ça donc donc amuñu temps vraiment pour ñu retracer quand même itinéraire bi nga def ak parcours bi nga def ak cursus bi nga def yëpp c'est vrai amuñu temps pour nga. pour nga pour nga pour nga pour nga di ci ñëwaat. mais dafa am aussi un aspect qui me paraît important mooy euh, tey mhm. euh, nga rencontrer. Euh, euh, Thierno Moulay Sow léegi bëggoon naa nga wax ma ci yan circonstance nga ko rencontré ak lu taxoon yow nga rencontré ko. lu tax ma rencontré ko parce que ça aussi c'est une longue histoire c'est parce que euh, France man depuis bu ma nekkee xale dama amoon lu ma topp. dafa amoon topp quoi. lu ma topp. Mm-hmm. ma nekk ak moom. man xam naa ko xam naa ko depuis ma nekk xale xam naa li ma toppo xam nga da am ay topp àndandoor quoi ñëw ay àndandoor effectivement mais mënuma xaw ma daal ban solution ma nekk ak moom ñu may souffriloo di ma souffriloo sama yaram bi daal. may mhm. sentir ne toujours am na lu nekk si man. Mhm. ma dund ko France. Mhm. dund ko France sonu amul façon euh, visite bu ma deful en France. pour trouver lan la. Mhm. dañ ma dem ba di ma jox médicament bi ñuy jox accidenté yi. mais ci docteur yi nga doon dem ko ci docteur yi. voilà pour di def ay traitement ay analyse ak yooyu quoi. voilà parce que fii xaw ma affaire euh, ay sëriñ. ak waaw ay yooyu xamuloo ko woon quoi xamuloo ko woon gëmuloo ko woon. voilà léegi nag euh, may dem si hôpitaux yi fu nekk dugal nañ ma foofu toujours euh, fuyete sama yaram bi partout mais mhm. duñu trouver dara. mais ah douleur bi ma nekkee. douleur bi c'est insupportable. or maanaam bi dafa taron daal. waaw parce que fi ñu logé woon moo ma doon def souffrir. a ah bon voilà ma nekk ko ba euh, euh, janvier euh, deux mille janvier deux mille vingt. Mm-hmm. janvier deux le quinze janvier. le quinze janvier deux mille mm-hmm. la gis première vidéo am bi. mais nan nga gis da nga dugg ci YouTube bi di xool tombe ci moom. wala ah, des dama dugg si YouTube bi mhm. tombe si moom. Mhm. mooy Jean Moulé boobu. ah euh, d' accord Casasin bi moom laa njëkk a seetaan. ah vidéo bi ak Jean Moulé moom nga tombe quoi. voilà alors bi nga ko gisee d' abord yow lan moo doon sa réaction bi nga koy xool est ce que tiituloo wala nan la nan nan nan nga ko dundee. Euh, tiituma mais dafa am lu ma sentir. lu ma sentir vraiment jour boobu li ma sentir euh, c'était trop plus fort que moi. ah parce que bi ma gisee euh, jinne bi daanu di kii man xaw ma woon loolu. bi ma mhm. ko gisee. ma ne kii dafa feebar de lu tax duñ ko yóbbu hôpital. en ce <laughs> moment moom maa ngi mhm. gis muy jeté wu si sachet yi di toj mbuus yi di def lu nekk mhm. mane ne kii dafa feeba duñ ko yóbbu hôpital mhm. après nag si laa ko gis mu ñëw présenté wu bi mu génnee ni jinne bi mu tëyee yérem bi mu ne ko bàyyil euh, de jéem a dindi détaché yére yi daal di indi microbe bi mais bi mu jëlee microbe bi wax rek sama karaw yaram bi yëpp dafa taxaw ah ko déggee moom mu wax sa kii sa yaram dafa commencé bi voix bi bi ma déggee voix bi. Mhm. li ma sentir c'était plus fort que moi. ndeysaan. waaw là euh, sentiment bi ma am si moom euh, mosu même sama yaay ak sama baay aw ma ko. waa ah bon même jour. bon euh, après ma continuer di xool. dama nga kon ne di xool video bi. vidéo bi chaque vidéo bu ñëw ma xool ko. Mhm. comme am naa sama néeg dama am télé bu guddee. damay tëdd sama lal di xool dem mën naa dem ba trois heures di matin quatre heures balaa may mhm. fay télé bi mhm. bon yenn saay télé bi mooy fay boppam ça continue comme sa mhm. bon ma dem ba gis ne daal benn jour ma sentir ne li ne li ma doon sentir sama yaram nekkatul sama yaram ah bon maanaam nga yëg par exemple li nga doon sa yaram yooyu frisson yi douleur yooyu nga yëg ne yaa ngi tane quoi euh, yëgatuloo ko quoi yëgatuma dara Hmm. boobu nag ah, jinne bi ñëw na tàggoo ak man parce hmm. buy ñëw day yéeg di woo vi vi vi ba ba muy ñëw taxaw si buntu bi mais après vidéo bi si la euh, dem daal a ah d'accord waaw ah, parce que man man sama jinne bi golo la woon ah golo maanaam forme golo la dikk daal golo forme ah, eh, dama ko daan gis ah d'accord léegi nag euh, ñu dem parce que am na bu góor am na bu jigéen. Hmm. jigéen bi nag c'était comme moo moo gënoon a baax ko sama yaay pour man. ah bon oui. voilà bon mais après sentiratuma dara sama yaram. ah d'accord ma ah vidéo yi xaw ma lan la lan la mais li ma doon sentir sama yaram euh, gisatuma ko. bon ma ne léegi lan laay def il faut que ma jël suma billet. Mhm. ma dem Sénégal ma comme ça soo demee nga seeti ko. non waaw ma c'était vers deux mille vingt la woon ah. Euh, c'était waaw. ou deux mille vingt et vingt le mhm. le trois janvier vingt mhm. laa ñëw seet ko. waaw le trois février. deux mille vingt laa ko ñëw seet. waaw man euh, man nag bi ma kii en en kii. en 2000 en 2019. 19 laa ko commencé seetaan janvier 2019. mais yow feebar bi mais je suis venir gis ko. en 2020. le 3 février. 2020 mm-hmm. laa ñëw jàkkaarloo ak moom laa ko ñëw seet. Mm-hmm. Ah. mais est-ce que bi nga nekkee France feebar bi a li nga doon yëg sa yaram. nga naan nee nga daan nga dem di ci hôpitaux yi dem ñu lay consulter des choses comme ça mais est-ce que France est-ce que par exemple sa feebar mosoo ci waxtaan na mu ne la demal seeti sëriñ yi quoi médecine traditionnelle est-ce que mosu la orienté ci médecine traditionnelle non parce que du ma fréquenté nit yi pour mën a. am c'est-à-dire que yow gëmuloon ay médecin traditionnel gëmuloo ko woon quoi en quelque sorte. mosuma ko sax xalaat. ah mosoo ko xalaat. parce que xamuma vie euh, vie boobu moom nekkul woon ak man. Hmm. ne de ay marabu sëriñ yooyu. Mhm. nekkul woon pour man boo feebaree dama la hôpital. d' accord euh, mais hormis par exemple li ñu doon yëg sa yaram sur le plan physique est ce que par exemple ci sa liggéey wala ngay ut dara mu yàqu des choses comme ça laal fii mu dëgër ou bien nga laal fële mu dëgër et cetera et cetera est ce que amoon nga aussi ay jafe-jafe yu doon jànkonteel quand même ci sa ci sa activité professionnelle. ak même ci sa biir famille sax. Euh, non. Hmm. non hmm. man daal douleur laa doon santé sama yaram. Mhm. mais à part ça ay jafe-jafe yo non non non non. ah, ah léegi par exemple yow bi nga jëlee avion bon nga ne gis nga ko ci YouTube bi nga ne xaaral ma jël ma jël avion dem dem rencontrer ko d'abord bi nga ñëwee yow d'abord yow bi nga ko rencontré lan moo sa sa sa première réaction maanaam bi nga ñëwee lan nga gis. le 3 février 2020 laa jël avion ñëw lundi mardi mercredi hmm. si laa ñëw seet si ko si clinique bi bi ma ñëwee fekk avant may ñëw wax naa suma rakk bi mu dem wax ko damay ñëw ziar la hmm. léegi nag bi ma ñëwee mercredi ma toog xaar comme tout le monde bi mu yegsee bon ah, mu dugg si biir ma dugg nuyu ko toog waxtaan ak moom bon explique euh, def nañu ay vidéo ak euh, keneen ki Fall. sa mhm. sa beneen kii bi Fall Moustapha. Moustapha Fall. Ah, moom ma njëkk a recevoir. tout à fait. Ah, ñu def euh, petit vidéo bon ma ko dama ñëw pour la parce que dafa dama feebaroon boo sonn mais depuis may seetaan sa vidéo yi. Euh, li ma doon sonna jafe-jafe yi ma doon am si wàllu santé yëpp dafa mm-hmm. dem mm-hmm. waaw ma ne nag léegi il faut ma ñëw remercier la mm-hmm. voilà loolu moo nekkoon sama tànk mais mais tes enfants boobu moo tu vivais avec tes enfants n'est-ce pas en France bien sûr voilà léegi yow yooyu bu la daan dal xale yi nan nan daan daan comporté woo gis suñu yaay wala mu ñu xam ne dafa am lu koy métti des choses comme ça expliquer ñu un peu quand même xale yi nan lañ doon accueillir loolu daal. Euh, difficulté yi nga doon traversé. doyen euh, man euh, je me souviens pas feebar tëdd. Hmm. mosuma feebar ba tëdd. Hmm. seulement damay sentir ne damay souffrir intérieurement mais boo toogee ak ñoom di nga ko sentir ou bien quand tu es seul ou bien à quel moment la la nga doon yëg ne yaa ngi sentir quelque chose non ah au travail da sentir ay douleur damay damay liggéey ak suma métit hmm. damay liggéey ak suma métit mais xale yi du ma leen wax lii moo may métti wala lii moo may métti parce que empêché wu def suma liggéey. mais et puis xale yi xam nga déjà xale yi dañuy am seetlu seen yaay est-ce que il s'est pas arrivé un jour xale yi xool xam ne suñu yaay mi elle ne parle pas mais au moins elle est en train de souffrir est-ce que une fois loolu musul am ci xale yi musuñu am boobu réaction euh, parce que doyen y a un côté mes enfants ils n'avaient amuñu woon temps pour euh, def attention si seen yaay ah d'accord mhm. ah d'accord voilà c'est ah, ça c'est parce que voilà quoi ah d'accord amuñu temps pour est-ce que pour xool réellement seen am seetlu ci moom daal parce hmm? que amuñu woon temps bi. ah bi lañ moo leen manqué woon te man du ma wax dama mal. fii maanaam yow li nga doon yëg doo ko wax daal da ngay noppi rek voilà aw woon temps aussi. Mhm. pour wax kenn ne dama feebar damay sentir mal ou yaasa. Mhm. man bu mu fekkee ne sonn naa ba sonn naa damay dem visite si médecin bi mu jox ma ay médicaments surtout. Euh, Euh, mille milligrammes bi Doliprane mille milligrammes. waaw Doliprane mille milligrammes moom nga daan jël quoi. moom parce que man mosuma jël médicament si suma vie bu dul mille milligrammes bi Doliprane lu may métti loolu laay jël comme hmm. médicament. Hmm. man euh, je me souviens pas tëdd feebar. d'accord waaw mais damay sentir ne damay souffrir parce que dama am na lu may sonna sama yaram. Doliprane bi mille milligrammes boo ko jëlaan daan nga yëg tuuti euh, tan quoi. pas ah d' accord. Fatou dem nañu ba di jox médicament accidenté yi parce que douleur bi dafa trop. da doon persister quoi. waaw mais ça du calmer dara. Ah, du servir dara. médicament yi du servir dara. <laughs> douleur bi mënul def dara dama habitué douleur bi. parce que ma je suis une battante man mënuma tëdd. Mhm. parce que dama malade mal. Mhm. damay dem ak suma douleur. di daw ak sama douleur parce que bëgguma perdre benn minute. d' accord léegi maintenant revenons maintenant bi nga ñëwee Sénégal nga ne xool nga ci vidéo bi gis euh, mara bu euh, ah. nga na kii nga jël adresse am alors jël rendez-vous ak moom nga ñëw rencontré ko. Mm. ñëw ne ko bon vraiment dama doon xool gis la ci YouTube bi des choses comme ça. Mm. alors fekk boobu yow tane nga. Euh, n' ce pas. même bi may ñëw damay sentir douleur bi dama ñëw. Euh, non avant avant may euh, ñëw si moom. wax naa la euh, douleur bi dafa arrêté. Ah, loolu moom laa wax ma ne boobu yëgatuloo douleur. quoi tane na quoi boobu boobu bi moom. arrêté voilà très bien très bien. dara mettetuma nekk en paix. waaw moo tax ma jël sama billet pour ñëw remercier ko. ah d'accord parce def ma faj to gisuma. ah d'accord loolu moo andi woon voyage bi. kon daal yow le fait que de di ko di visionner vidéo yi di ko xool de choses comme ça après ci nga yëgee ne tane nga. Euh, waaw ni ma topp yëpp dem. ah bon. waaw dem. kon <laughs> golo golo bu góor beek bu jigéen bi lool ñëw di la di la fréquenter yëpp gisatoo leen. yëpp dem na. d'accord léegi bi nga ñëwee wax ko moom lan la la wax dafa am lu jox wala lan la la wax moom bi nga ko waxee loolu. bi ma ñëwee amoon na beneen problème bu dul loolu kese. Hmm. bi ma ñëwee def ma ne am na. daf ma seetal mu ne ma il faut nga faju mhm. ma ne ma xool ma ne ma faju lan moo war a nekk si sama sama yaram loolu laa ko man tànn naa si ne nii oh, mais waxuma ko dara mais dama xalaat est-ce que lan mooy suma problème encore ba ma war a faju faju mhm. cest a dire xamuma ban façon faju mhm. waaw mu ne ma il faut nga faju ma ne ko d'accord bon mu commencé mu jox ma cuuraay bi mu suur ma cuuraay bi jox ma ma sangu. Mm-hmm. ma dem ma ñëwaat mu jox ma cuuraay bi jox ma ma sangu. Mm-hmm. ma dem mu jox ma yeneen mu ne ma léegi yóbbaale ko. Mm-hmm. en ce ma aussi seetal na suma doom yëpp mu xam ne aussi ñoom aussi dañu am ay problème bon. Euh, ah xale yi bi ñu xoolee aussi xam nañ ne ñoom tam am nañ ay àndandoor ko non c'est pas question àndandoo mais euh, dañu bëgg a gâcher leur vie euh, yàq seen vie quoi. ah d'accord waaw. ci comportement xale quoi buñ leen non buñ leen toppatoowul dina am ñu leen yàqal. Ah, yàqal ah d'accord voilà. maanaam xale dañ nekkoon sous la menace quoi. voilà voilà. voilà voilà voilà problème maraboutage quoi. Hmm, ah d'accord pour avenir bon. Mhm. léegi nag si la ñibbi. Mhm. fekk nag euh, amoon na même si biir xale yi mhm. ki nga xamante ne aussi euh, bu demee ba bugg a def examen bi bët yi di métti di métti di maanaam bu demee ba bugg a def examen rek di métti quoi bët di métti mhm. deux années deux années léegi bi ma ñëwee nag boo bugg a ñibbi ma ne ko ah léegi man dama am benn problème sama doom bi fekk euh, avant ah, may ñëw si moom wax naa xale bi nañu ànd dem mu ne moom du ñëw. xale bañ na du ñëw. mu ne du ñëw ma ne ko sa booti yi ñu ngi métti nañu dem mu ne moom du ñëw. Mhm. bon bi ma ñëwee ba remercier ko ba mu faj eh, jox ma ay garab ma sangu ba pare ma ne ko léegi man dama am problème dama am benn doom boo xamante ne mu ngi foofu bët yi day métti tout le mhm, temps. Mhm. bu demee ba bugg a def examen rek bët yi attaqué ko. du mën a def ça fait deux années. moo sur place la ma wax mu ne ma du faju hôpital. ah d'accord mooy ne li li koy métti du faju hôpital. du faju hôpital. Mhm, mhm. bon ma ne dama ko waroon a indi mais ñëwul léegi nag il faut ma dellu ma indi ko ma forcer ko pour mu ñëw. Mhm. comme du faju hôpital. léegi nag bi ma demee Euh, ma egg ma wax xale bi léegi il faut que ñu préparer ma yóbbu la Sénégal force nga dem parce que ça ne mm-hmm. corona bi ñëw. ah d' accord muy en mille vingt et un. waaw ah, ah, nga bu ko fekk mu am période corona bi. Euh, non non corona bi attaqué monde bi yëpp. mooy waaw moom laa wax dama de ah. en deux mille vingt et un la woon corona bi. mu ñëw corona bi c' est est c' est mars deux mille 2020. mars 20 2020 bi ma ñëwee février 2020. 2020 ba ñibbi. Mhm. mars bi la corona bi commencé. Mhm. attaqué nit mhm. bi mu attaqué nit yi mënatuma ñëw. pour indi xale bi. très bien si mois de mars bi. Euh, mars bi la commencé. léegi avion yi arrêté. dara doxatul. léegi xale bi avril bi affaire bi benn jour dafa yeewu rek affaire bi attaqué ko. dafa daf ko jote si canapé bi mu commencé am fièvre mm-hmm. ma ne léegi ma xool xaw ma lan laay def ma defe ne a ah, c'est c'est une mala feebar moo ñëw mm-hmm. or que bëti la mm-hmm. bëti à la fin mënul gis dara yëpp daal lumière moom du ko jege ah d'accord obligé maanaam dafa ragal lumière lumière bi ma dugal ko si néeg bi eh, damay muur néeg bi yëpp dara du mais est-ce que moment boobu sa doom bi bi mu toogee la euh, buggul gis lumière est-ce que yow xalaatul nga yóbbu ko hôpital wala da nga ne noonu lii affaire médecine traditionnelle. moo koy fay non si yóbbu naa yóbbu ko hôpital bi nga yóbbu lan lañ leen wax. yóbbu naa ko hôpital parce que man balaa may ñëw euh, Sénégal. Hmm. da doon dem si médecin bi mu koy jox ay gouttes. Ah, mu siy def si boot yi métti. Mhm. bi ma ñëwee laa ko wax xalif bi mu ne ma du faju hôpital ma ne léegi bu ma delluwee. ma ma forcé ko mu ñëw. d'accord juste corona bi mu ñëw. ah d'accord donc euh, corona bi ñëw mënatuma ko indi parce que avion dawatul dara dawul ma obligé di ko yóbbu urgence. urgence. urgence tout les semaines day dem deux fois urgence. Mhm. ñu ne gisuñu dara dem nañu ba génne bët bi dugal ko si kaas. ah bon pour xool. bët bi dugal ko si ver dugal ko ci verre. pour xool bët xool ñu ne gisuñu dara. analise yëpp bilan la def total. gis dara waaw mais après la compre xam ne affaire bi euh, jinne moo ko topp jinne moo ko topp mhm. léegi nag euh, mënatuñu ñëw mhm. ma koy yóbbu Paris am na benn spécial bu nekk Paris. Mhm. ma koy yóbbu foofu tous les deux semaines. dañuy nga ko à Paris. ma yóbbu ko ba Paris. entre Paris Besançon ya y cent cinquante kilomètres. Mhm. Euh, il faut deux heures sur le euh, TGV. TGV bi da koy def euh, deux heures trente. deux heures trente ah, dañuy passé journée bi yëpp foofu Paris. Mhm. ma nekk si bo sonn ma du changer mais finalement moom mu jor nga koy wala jotul ñëw. léegi nag euh, ma ma ne sama rakk bu jigéen bi nekk fii Sénégal ma ne ko il faut nga dem seetal ma xaalis bi parce que sama doom bi dafa sonn te xaw ma lan mooy problème am léegi mënatul sax gis lumière toujours damay muur yëpp du lekk. du mhm. naan du def dara day tëdd noonu bët yi on dirait day génn ci biti. léegi nag xamuma nan laay def yóbbu naa agence def naa lu nekk. Mhm. du marché. Mhm. bon ma ne léegi comme ça il faut mu dem seet ko. Mhm. bi mu ñëwee gis ko. mu euh, dal di may woo. vraiment la lan laa la waxoon bi nga ñëwee Afrique. ma la ma ne ko danga ma waxoon ne du faju hôpital. mu ne ma effectivement. ma ko nag dafa sonn léegi avion amul. mënuma génn Sénégal euh, dem Sénégal Paris pour ma dem foofu même amuloo droit plus de cent à cent mètres. pour ah d'accord ah d'accord parce que. mais damay obligé euh, mhm. forcé pour dem Paris benn jour dama ñaan si ñetti turam yi pour mën a dem jël sama train bi pour dem. Mhm. nii laa romb police yi dem ba dellu si. nga romb police waxuñ dara nga dem waxuñ ma <laughs> dara ma dellu mais. Mhm. serviru dara parce faj bi euh, pari dañuy dañuy euh, vider paupières yi. Mhm. ndoxu bët bi la ñuy vider. Mhm. te risque bu mag la balaa ñu koy def dinañ la laaj est-ce que d'accord nga si parce que mën na yàq bët bi. parce que mën na yàq bët bi quoi. mais looy def. Mhm. nga jël risque mais serviru dara léegi nag euh, ma mu wax ma wax ak moom léegi moom mu envoyé jinne suñu héros yi pourquoi ma leen di woowee héros. Mm-hmm. parce que dañ ñu ñëw sauver la vie. waaw mm-hmm. ah, mu envoyé suñu héros yi ñoom Jean Moulin ak ñoom ah, kii Gulda Shakiru ñoom ñoo ñëw woon génne jinne bi si xale bi. Mm-hmm. voilà à distance. bon donc mu faj ko à distance après xale bi wér. xale bi euh, jour biñ ko dindiwee euh, xale bi da ñëw nekk conscient mu ñëw fekk moom a mu ne ma ma dafa xale bi def câlin. si vie am mais jour boobu dafa ñëw jote wu sama kaw ne ma maa lan la ma ne ko dara mu daal di laxas suma kaw ma ne ha kon jinne bi dem na e, foofu man aw ma lu ma fayee xale e bi daal voilà mais yaa ngi xale bi xale bi góor la wala jigéen la sa doom la ah très bien très bien la très bien très bien alors euh, donc euh, loolu muy expérience boo xam ne dund nga ko parce que dañu gis souvent Euh, dooy gëj Sénégal souvent da ñëw bon ñëw def fi ay quelques fan après nga delluwaat mais dafa mel ni aussi tamit bi nga nekkee France tamit amoon na fa un événement bu mag muy muy le 20 janvier mooy euh, mooy rencontre boobu nga xam ne moom defoon na ko fële euh, fële à la salle Girafe à bañole dans la banlieue parisienne est-ce que moment boobu France la la fekk. bien sûr. ah d'accord. maa ngi woon France. Ah, parce que dama kon doon préparé accueil bi quoi. pour ah, pour pour cérémonie bi. maa ngi jóge fii le vingt neuf novembre. Mhm. Euh, euh, vingt neuf novembre la quitté fi mhm. egg foofu le trente novembre. Mhm. décembre bi foofu laa ko passé Noël ak sama famille. ak sa famille. bon moom mu ñëw le euh, le quinze janvier la ñëw. mais bi muy ñëw bon yéen yéen a ngi ci préparatif yi. Euh, gis naa ci ay image ngeen mu benn am benn campagne d'affichage ngeen di afficher euh, maanaam est-ce que par exemple français yi bi ñu gisee ngeen di afficher loolu euh, maanaam événement bi ñoom nan lañ ko dundee est-ce que laaj nañ leen ay questions par rapport ak li ngeen di préparer. foofu nag duma mën a répondre bu bari parce que. Hmm. ñoom Paris la wàcc. waaw affaire bi Paris lañ ko doon genre salle girafe boobu. c'est à man maa ngi à Besançon. à Besançon ah, bon, d'accord voilà. mais quand même tu avais fait le déplacement jour ba yaa le janvier. man maa ngi maa ngi dem le le 17 euh, le 17 janvier. laa dem le 17 alors que affaire bi le 20 la woon. le samedi. waaw le 17 janvier dem. pour ñu hmm. mën a préparer. Hmm. Euh, accueillir ko. balaa hmm. muy ñëw. jour bi mu ñëwee euh, kii nu mu tuddati gare de Lyon lañ ko accueillir. Mm-hmm. bon dem si benn restaurant des foofu naan thé à foofu la jinne boobu mu déclenché jinne bi mu génne woon si xaadi voilà euh, voilà après ñu yóbbu ko hôtel euh, mm-hmm. après ça dama des ak moom euh, durant séjour bi yëpp en mm-hmm. France dama ko des ak moom léegi ñu revenir maintenant sur la cérémonie du janvier à la salle Girafe yéen en tant que ay taalib bi nan ngeen dundee événement boobu est-ce que amoon na ñoo xam ne par curiosité dañu woon xool ndax est-ce que lii c'est vrai ou c'est pas vrai est-ce que lii fon euh, fiction la ou pas est-ce que amoon na des curieux dañ ñëw rek maanaam pour xool. Euh, salle bi bëri woon na nit. Hmm? Euh, bi ñu defee yëpp salle bi le vingt. Hmm? bëri woon na nit nit yëpp ñëw na mais ku si nekk yaa ngi bugg a découvrir. Hmm. lan moo xew. lan mooy xaw ba nga xamante ku si nekk yow yaa ngi yaa euh, bugguloo dara a part gisal maanaam bugguloo dara raté ci événement bi dara daal gisal sa bopp lu mhm. xew mhm. voilà foofu moom amul euh, kenn kuy dute wala yooyu mhm. yow daal bëgg nga xam li xew daal ñoom ñëpp ku si nekk da nga jënd sa ticket ñëw toog waaw nañu seen bopp waaw jour boobu moom vraiment vraiment euh, c'était il a convaincu quoi. voilà voilà. ah que li Sénégalais yi doon wax yëpp. je crois que bu ñu nekkee honnête. Hmm. dinaa ñëwaat si ñoom parce que ñoom ñoo ñuy commencé ñoom ñoo ñuy tooñ ñoo tax moo tax du ma leen bàyyi aussi <laughs> waaw bu fekkee ne hypocrisie la ñuy jaay si si si si liggéeyam bi. Hmm. je crois que lépp leer na jour boobu. Hmm. parce que gisuñu benn vit fait bu tuuru. Mm-hmm. gisuñu benn ndox bu tuuru mm-hmm. te génn na ñaari ponkalu jinne yoo xamante ne moom xejul si doomi aadama mm-hmm. waaw léegi nag lu ñuy waxati à part nangu voilà en tout cas keroog yéen ñi nga xam ne vous étiez en France vraiment demoon pour la pour l'occasion ngeen dem assister quand même à cette grande rencontre bu bu bu bu euh, bu historique boobu quand même au sortir de cette cérémonie quand même vraiment nit ñi au moins amoon nañ satisfaction bien sûr euh, ñëpp a kontaan mhm, mhm. ñëpp kontaan parce que salle bi dafa yëngu mhm, ay jinne yi dañu yëngu jinne jinne yu bari dañu yëngu foofu am na jinne yu bari dañu daw dañu daw dañu daw jour boobu liggéey bu am solo la def te kër gi ñu nekkoon euh, man maa fa nekkoon mais kër gi day fees tout temps Mhm. kër gi day fees matin midi soir dañuy fanaan toog ba ba set. Mhm. ndax day liggéey. très bien ah. mais Virginie bu ñu bu ñu seetloo vraiment bokk nga ci ñoo xam ne nii li ngay ñëw Sénégal quand même euh, c'est assez fréquent lu tax chaque fois tu as envie de venir le rencontrer. Mmh, ça c'est une bonne question. <laughs> ouais, parce que. Mmh. bi. Mmh. bokk si yàlla. Mhm. si zaayir ak si baati muy suma mag ah, sa mag sama mag la sama mag la si yàlla ak yonante bi dëgg la mhm. euh, histoire xalif bi euh, euh, mu ma jaral jaral na parce que yenn saa yi olof bi day xaw a paan quoi. dëgg la euh, maanaam moo jaral ngay déplacé di ñëw par exemple comme ay yow doo def yooyu ngay def par exemple est que. du ma def wala moins de six mois. du ma def six mois parce que euh, yàlla li ma defal si si xalif bi ak yonante bi euh, xaw ma ndax gisuma kenn ku mën a wax ne yàlla defal na ko loolu si si yàlla si e, yonante bi ak e, xalif bi. très bien voilà. très bien bi dañu bokkut du tey. très ah. mën naa wax ne tey bu ñu waxalee wa bu ma waxalee dëgg e, waxalee sama diggante a yàlla mën naa wax sa eska ce que yàlla sàkkuma ngir yàlla yàlla sàkkuma pour bi. pour nga ñëw di ko liggéeyal daal. waaw. Mhm. waaw dama bokk si moom dama bokk si moom. mais d'ailleurs gis nañ yow boo ñëwee da dugg ci waañ be yooyu d'ailleurs ñu dem à la ñu war ñu euh, image boo xam ne gis na la nga nekk ci waañ bi yooyu affaire bi noonu di ah mel ni kuy togg di liggéey. parce que c'est normal. Mhm. Euh, ça fait quatre ans maa ngi liggéey ak xalif bi. Mhm. du tey laa liggéey ak xalif bi. yéen euh, national daal national xamuñu moom mais international xam nañu. mais daal mais national fi mu xam nañ la parce que yow presque événement yëpp dang presque fi la lay fekk. du du du noonu la ñu xamee nit ki. Hmm. parce que euh, xam nga xale bi fu mu ne nii nit yi xamuñu ko nit yi xamuñu ko. Hmm. Euh, te nit pour nga xam ko il faut nga jege ko wala nga bugg ko pour nga xam mooy kan. dëgg mais nit ki bu la buggulee wala mu lay jaloux. Mhm. mënu la xam. dëgg la du chercher à comprendre. yow yaay kan. Mhm. Euh, voilà mais c'est pas mon cas mon cas c'est parce que euh, euh, du ma dugalante ak nit yi. Mhm. aw ma benn kii relation ak nit yi. d'accord mais léegi donc depuis lors bon pratiquement malgré que yaa ngi ñëw mais actuellement yow. yëgatuloo dara sa yaram daal amatul lu lay tiital golo yi nga wax daf leen doon topp ak yooyu et puis sa nga xam ne danga doon bët yi daf doon kii ba du gis lumière est-ce que yooyu yëpp ni ni tey euh, loolu dëñ na loolu yëpp jeex na parce que xalif bi daf ma jàppale jàppale boo xamante ne pour man euh, bu ma ne est-ce que euh, lim ma yàlla defal si moom est-ce que defal na ko keneen parce que hmm. def ma jàppale côté bu nekk ah def ma sauver la vie deux fois wax hmm. naa leen ko du tey hmm. daf ma jàppale côté bu nekk si sama njaboot ba nga xam ne tey moom moo ma laa gën a jege ko suma doom yi waaw sentiment bi ma am si moom amour bi ma am si moom xëy na sax amuma ko sama doom yi parce que nit dina am foo xam ne fu mu la toll foo xamante ne. Mhm. Euh, daal desalu desalu la. dara maanaam desalu la dara. desalu la dara ah yow Virginie léegi nga dégg olof ah, parce que sànq dama foog ne parce que souvent damay gis ay wax mais tey moom ay olof yu leer nañ ñi nga. maa yow ndekete boo bëggee wax sa soxla di nga wax sa soxla. ci ci wolof. Euh, maa ngi lekk ceeb bu sénégalais c'est vrai depuis bu ma ñëwee ma poisson wante nag. maa ngi wax olof. nekkuma seen ceeb ceeb ceebu jën. à part Mauritanie mais maa ngi débrouillé parce que. ah lan moo la ah dese boobu ñu demoon ñu toggal ñu foofu. ceeb bu ah d' accord bi ngeen demee jaale ji. waaw ah d' accord. waaw ah d' accord. xale bi dafa faj sama njaboot faj ma faj sama njaboot. jàppale ma jàppale sama njaboot. ah d' ba nga xam ne pour man. pour man damay xalaat ne pour man kese la. ah d' accord c' est vrai c' est pour le monde entier. d' pour ñëpp la. mais yow daal da ngay def yow kese la quoi. pour man bu ma sañoon pour man mm-hmm. kese la. Mm-hmm. voilà. voilà donc bala ñu tëj volet boobu c' est vrai que yi ngay gis en image ak mm. séquence yi ngay gis yooyu euh, ban moo la ci gën a marqué nga toog ni di ko seetaan rek nga ne bii moom def ma marqué est ce que am na ci benn wala ñaar wala. comme quoi. maanaam vidéo yi ngay seetaan yi muy yi muy def démonstration yi muy yi muy li muy wane daal di def démonstration di faj yooyu alors lan est-ce que am na ci bula la gën a marqué. non vidéo yëpp vidéo yëpp ma marqué. ah d'accord. vidéo yëpp ma marqué. d'accord waaw. d'accord man man suma bëgg bëgg tey. Mhm. des si rek. d'accord mooy suma bi euh, moom mooy euh, li ma bëgg mais pour vidéo yi moom. yëpp a hmm. ma marqué. yow daal kon boo sañoon léegi da ngay yow rek toog foofu daal ci wetam daal. bu baax sax. d' accord fu ma ne nii démb da nga yàq sama journée bi parce que bi nga ñëwee ne ah defe naa léegi nga ñibbi sama journée bi dafa <laughs> yàq. waaw mais kon nga toogaat déet man xoolal man man man bëgguma ko ñibbi de parce que man nga toog moo ma gënal. donc dafa fekk ne yow booy ñëw parce que tamit vous avez déjà fait votre réservation n' pas parce que yow booy ñëw. xam nga période bi nga fiy def et puis xam nga période bi ngay ñibbi. mais daal bëgguloo woon daal ñu tudd affaire ñibbi daal. période ñibbi bi c'est. Hmm. du jógewul si man. ah jógewul si yow si man. ci kan la jóge. c'est parce que euh, français yi ñoo ma sonal. ah français yi. français yi ñoo ma sonal. Euh, aw ma droit plus de trois mois au ah, Sénégal. ah maanaam maanaam séjour amoo droit def plus de mois ici au Sénégal. ah kon kay sénégalais yi la du du def ci dara. Ah, Sénégal ba français yi la. Hmm? Euh, bugguma ko tudd ñibbi. ah buggoo tudd ko ñibbi bu ñibbi daal moom ngay bañ. ñu tudd ko ah, moom laay bañ a dégg. d' accord kon nag. aw ma choix. d' accord très bien alors donc kon nag ñibbi <laughs> dootuñ ko tuddati parce que yoo xam naa ne même boo ñibbee. jëmm ji moo dem mais xel mi moom ak xol bi yëpp mu ngi fii n'est-ce pas. ah du dëgg damay dem léegi ma ñëwaat. ah d'accord très bien léegi maintenant parlons de de Virginie Traoré une mère de famille avec ses enfants. Mhm. Euh, tu vois euh, maanaam le de Virginie parce que gis nañ léegi yaa ngi tudd ay ceeb lekkuma jën nangam nangam euh, yan façon togg moom nga gën a préféré di ko togg en famille ban plat. Euh, en franchement lekk africain yi du suma gu. ah lekk africain yi du suma gu te ngay ah lu tax loolu Virginie. parce que dama perdre habitude bi. da nga perdre habitude. ah bon. Euh, fii dama c'est vrai maa ngi lekk ceeb bi tuuti. mais yaa ngi lekk ceeb bi mais malgré toi mais bugguma noonu ceeb. ah bugguloo noonu ceeb bugguma ceeb noonu bugguma noonu. ah bugguloo jën. Pas trop. ah bon. que aw ma habitude bi. ah d'accord dinaa koy lekk ni euh, bu ma amul amul aw ma choix. amuloo bu ma ko lekkee aw ma choix du parce que bugguma ko mais amatuma habitude bi. ah d'accord da nga perdre habitude bi damay am nausée. ah damay am nausée parce que dama ko gëj a lekk. parce ah. que ñun France. lekk yi ñuy lekk foofu. Mhm. Euh, yenn saa yi man sama doom yi mën nañ des un an du ñu lekk ceeb. ah voilà du ñu lekk jën. du ñu lekk gis na ay africains yoo xam ne surtout sénégalais yoo xam ne dañuy toog di namm ceebu jën ba bu ñëwee fii dañ leen naan toggal ma ceebu jën bu saf. sap ma ma lekk ko parce que dama koy namm. waaw parce que hmm. man fii même bu dee riz ceeb bu sew bi moom hmm. boobu laa gën a bañ. mais bu nekk euh, ceeb bu dijj bi. maanaam riz bi. waaw riz entier bi. Hmm. Euh, mën naa ko lekk. mais bu dee riz kaase bi moom euh, boobu moom waxuma si dara. voilà loolu mooy problème bi. voilà nag euh, habitude dañoo amul habitude bi. Mhm. voilà sama kër du may togg yooyu euh, togg africain bi du ma koy togg parce que xale yi dañu compliqué. Voilà, tax donc nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Voilà. Euh, bi Madame Bimneke, jeune fille, bonne façon, nga solo, madame, Euh, yëre tubaab pantalon wala ay jupe yooyu ban xeetu se nga bëggoon di def bi nga nekkee xale bu jigéen. nekk une jeune fille. sol naa yëpp. sol nga yëpp. mais am na ci boo xam ne nii doon nga bëggoon ne nii nii moom maanaam pantalon da nga xale bu yooyu ah non man pantalon. am nga sol nga jupe pantalon xaw hmm? ma ko bëgg noonu. Ah parce que euh, man euh, du ma nit bu tuuti pour di sol ay yëre yu dagg yooyu ay pantalon. ah d'accord non man depuis bu ma nekkee xale. Hmm. dama am suma personnalité ba nga xamante ne bugguma sol n'importe quoi. ah d'accord. du ma fréquenter n'importe qui. tout à fait voilà dem naa ba nit yi defe ne dama soxor fekk du. dama soxor parce que euh, bugguma dugalante ak nit yi parce que dama gis nii mais euh, bul yeeluy nelaw sama kaw. dëgg la voilà loolu ça c'est mais nag baax ba jot ma amul. dëgg la. je suis modeste. tout à fait dama wàcc suma bopp ba si suuf. Mm-hmm. mais boo ma fekkee fu ma nekk France si biir tubaab yi. Mm-hmm. boo tasee ak man doo ma nuyu. da ngay ragal nuyu ma. ndax caractère bi. mais bu ma nekkee bu ma ñëwee ba aéroport ma dindi yére boobu ma teg ko. aéroport mais lu tax loolu nag pour que comportement ba léegi nga di ko am en France comportement doo ko am. fii Sénégal non parce que ñemewuma Sénégalais ñemewuma Sénégalais. ah Sénégalais euh, seen façon de vivre c'est c'est trop compliqué. ah d'accord ba ah, boo ñëwee il faut ngay négocier ak ñoom. ah il faut ngay naxante ak ñoom quoi. Ah, mais doo ñëw di ñàngal seen kanam ak yooyu daal. parce que euh, dañu <laughs> compliqué. Mm-hmm. xam nga tubaab. mën mm-hmm. nga ko def nii mu ne la baal ma. dëgg la mais nit bu ñu boo ko defee ni mu ne la tey. tey ma defanteeg yow. voilà ñun xamuñu loolu. dañ bëgg defante quoi moo tax ngay négocier. waaw ah, dañuy négocier loolu mooy suñu problème. voilà donc les deux ah. dernières question moom la ñu tëjee mooy. Euh, benn souvenir boo xam ne ni c'est vrai que àddina moom lu neex ak lu naqari moo fi am am na souvenir boo xam ne ni quand même dund ko vraiment ça a été nga may ñu ci après nga terminer par le bon souvenir que tu as vécu. Euh, douloureux, douloureux. Pour euh, la vie n'est pas n'a jamais été facile. Mhm. vie mosul facile si kenn. Mhm. seulement rek c'est un combat. il mhm. faut se pour arriver. ay épreuve la quoi. voilà voilà moi je suis une je euh, ne bugguma des derrière. dëgg la mosuma ko accepter. doo teggi sa tànk quoi da ngay avancer rek sama vie yëpp dama ko daw ba mu jeex tàkk tàkk tàkk. très bien. fit nag kenn gënu kenn ëppuma fit. ah bon mbaa du fitu gay am. <laughs> kenn ëppuma fit. mais hmm. nag euh, euh, je suis réservé. très bien très bien maintenant par un bon souvenir jour boo xam ne vraiment keroog. am nga lu neex loo xam ne defal nañ la ko wala nga gis ko wala nga am ko wala nga découvrir ko loo xam ne vraiment keroog kontaan nga. Ah. tu as ce bon souvenir. jour ba ma duggee màkk. jour bi nga duggee màkk. waaw mooy suma jour anniversaire. ce jour anniversaire nga dugg màkk. ma laa dugg màkk. Ah, ah bon vous avez été à la depuis deux mille vingt. depuis deux mille depuis deux mille. depuis 2000. waaw ça fait bientôt 25 ans. bientôt 25 ans. bu ma jógee nga effectué le pèlerinage à la Mecque. donc ça a bon souvenir boo xam ne yaa ngi ko maa ngi amoon trent 37 euh, euh, euh, ans non oui. 37 ans oui ans. ah donc à 37 ans nga dem siyaare ji sang bi. ma siyaare ko gis leeram nga jaare gis leer leeru sang bi. jour boobu euh, vraiment vraiment euh, c'est mooy jour. Euh, jour c'est un jour inoubliable doo ko fàtte. ah oui sang bi de considéré moom doo fàtte dara ndeysaan. daf la marqué dans ta waaw waaw ça a été un bon souvenir. suma jour anniversaire ma gis encore leeram foofu. Hmm? defe naa ne du n'importe qui qui peut ah oui oui loolu moo moom vraiment c'est un très bon suba rek la ma feeñu. ah suba rek. si suba à cinq à quatre heures à quatre heures vingt sept mhm. boobu à trois heures du matin nelawuma mhm. booy à quatre vingt à quatre heures vingt sept dañu ne allah akubar rek mu feeñu ma yore kurusam yore kurusam kurus bu nganda di wirdu ndeysaan dama jooy dama jooy oh. jooy matin matin bi yëpp dama jooy c' est la deuxième fois. c' la deuxième fois nga di ko génn ne sant yàlla mhm, rek. Mhm. sant te loolu yëpp. Mhm. yàlla ak yoon ak xalif bi la. ndeysaan ndeysaan parce que. ma la waxee dama bokk si moom parce que lu ma am tey rek mën naa wax yàlla ak moom la. ndeysaan ndeysaan waaw. Ah, lu ma am rek. yàlla ak xalif bi la. ndeysaan merci jërëjëf ndeysaan. on comprend yàlla def ma compal si moom. ndeysaan ndeysaan ah, vraiment ah, vraiment. vraiment ça loolu moo tax ma ne leen euh, moo ma gënal lépp lu ma am. très euh, bien yàlla nag mooy maye. dëgg la. Euh, parce que man bu may bu ma toogee si këram tey booy gis yonante bi. Mhm. mu mu feeñu ma. Mhm. vraiment vraiment di wirdu. Mhm. à vrai dire man lan laa lan laa lan laa. xaw ma lan laa des si àdduna dootuma am lu ëpp loolu. quoi loolu dootoo am ndeysaan loolu voilà donc. xam naa ci loolu vraiment événement boobu nga xam ne dund ko wax ko. Mm. tey ci fajar gi gis nga tey ñu na waat émission bi tey ci jour bi. dafa naa ne loolu du hasard tey muy ajjuma alors donc lan ngay tàggatoo ak téléspectateurs yi Virginie. ah damay tàggatoo ak euh, ne leen euh, maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. Mm-hmm. Euh, kontaan naa daal si émission bi maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. Mm-hmm. voilà. surtout di remercier suma grand frère bi la xalif mhm. général di jinne mhm. di suñu kilifa mhm. di bàyyi sëriñ si voilà le de l'humanité le meilleur de l'univers le plus beau plus gentil jàmbaaru l'islam kenn du moom macha allah borom nag ak meew yi merci la lépp yaa ko ndeysaan bi hmm. dernier jour bi ñu hmm. ne ak Njusumaan bi yow yaa fi ne yow yaa moom lépp ndeysaan ku ko bugg ku mu neex ku mu neexoon <laughs> yaa fi nekk ndeysaan waaw wax sénégalais yi il faut ngeen delloo seen xel hmm. ngeen yóbbu seen xel ak seen xol yi si yàlla jaamu yàlla surtout ku tedd kii ki yàlla tëral Hmm. muy le khalife général de Djinné le sauveur de l'humanité hmm. ngeen bàyyee ko xel ba ànd ak moom liggéeyal yàlla liggéeyal yonante bi loolu moo fexe parce que bu boo leen toogee ba dernier moment yëpp xam nga hmm. olof da de mag yi dañ daan naan bu ma xamoon. Hmm. bu ma xamoon la ñu wër ba sonn. fekk dem na ko xam fekk dem na voilà. <laughs> heureusement que tu as pris le train au bon moment. Hmm. yaa ngi ci train bi. ah ma ne kon heureusement yow moom train bi bàyyiwul fi moom jël nga ko. oh là très bien ah, <laughs> voilà voilà merci. Hmm. merci donc euh, chers amis. Euh, internautes merci encore chers amis téléspectateurs tey ñu amoon comme invité. Euh, dama naan ajaratu Virginie Traoré. merci voilà donc ajaratu c' est vrai que elle nous a fait la révélation euh, dégg ngeen jaar-jaaram c' est un résumé quand même euh, de son de son très long parcours. alors tey moom la amoon comme invité pour le deuxième numéro de de Eutou Moulay euh, ñu profité nag ci occasion bi di di remercier encore euh, euh, le restaurant Car National à travers la personne de madame madame. Euh, ajaratu awaka moom tamit di ko remercier vraiment mu moo ñu offrir ce ce beau cadre ñu tourné ko fii di gërëm aussi tamit euh, vraiment xaritam yi mbokkam yi am di jàmmam yi ñoom faa fàttewuñ leen ñoom labuda ñoom ñoom ñu leen leen ziar le personnel aussi de du restaurant du complexe Can National aussi ñu ngi leen remercier aussi ci seen disponibilité alors di remercier en tout cas euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ci au niveau de la régie Fallou Galas bayi mbenn di préparer dem dem tabaski ji ak aussi jibi moom tamit di préparer di préparer tabaski bi Saalum Saalum ñoom tamit vraiment di leen jox rendez-vous euh, sur la TMS euh, pour un autre numéro. Bienvenue, vous êtes sur la TMS la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel.